bu doon jinne yu mag yi loolu du garaaw bu doon jinne yu mag yi nga ne lu garaaw la mais xale yu ndaw yi booy yi fo njëriñ lan ñooy foyee sawara aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci fa ñu leen daan nuyu muy seen site bu mag bii lay di Fidel Info ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur ak téléspectatrices yëpp yéen ñu safoo seen site bu mag bii lay di Fidel Info ñu bëggee leen ñaanal leen yàlla jàmmal leen waytam yàlla yokk leen dëgëral ci dara ji sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaanal suñu xalif généraux yi yàlla dool leen kàttanal waaye yàggal leen fii ñu mottali seen liggéeyu maam yi ñu naal ci dara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ñaanal tamit kilifa kilifa aada yi yéene yi ñu am ci liggéeyal ko seen réew yàlla moo mottali leen ko ci dara ji yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam réew mi yàlla def fi jàmm yàlla def fi naataange waaye itam yàlla def fi sutura gu saawaan baawaan incha allah taala tey nag mbokk yi ñu ñëw seet si kilifa gu mag waaye ñëw seet si jàmbaari diine waaye ñëw seet si ki nga xam ni bari na ko aajom të bu ñëwee ci moom mu fajal la ko bëri na ko ay rangoñam di tuuru boo ñëwee ci moom mu fompal la ko waaye bëri na ku nekk ci njaaxle jàkkaarlook moom say aajo faju kooku nag bu ma la ko waxee kenn la mooy alaaji Tamsir Anne mu Serigne Babacar Sy alaaji Tamsir Anne mu Seydina Mohamed waaye alaaji Tamsir Anne mu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di jàmbaari fakk tëdd waaye itam di ko yàlla may xam-xam mu biir ci lool mën ko ba pare lewet ci waaye itam di ko defee ak mbaax ala tafsir balaa ñoo tàmbali waxtaan wi ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs ak téléspectatrices yi jàkkaarloog yow di la seetaan maa ngi lay bëggee. aouzu billahi min shari shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Oustaz Abdallah ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal. Mm. Eh, émission bu mag bi di. Fidèle Info di ñaan yàlla bi yi ñu yëkkati yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla barkeel waaye di ñaan yàlla ci mbaaxam ak kàttanam lépp lu fi wadde ci xam-xam ku ko jëfandikoo yàlla na ci yàlla def ndam ni nga ko waxee ziyaara mbokk jullit yëpp rawatina nag sunu kilifa diine yi ak sunu kilifa aada yi ñaan yàlla réew mii ñu amul lu dul moom yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli xéwal Oustaz Abdallah am ñu mbégte ci dalal la ci kër gi mhm. ndax kër gi sa kër la mhm. Fidèle Info damay wax né ligéyam bu sa taxna ñu fas yéene ligéy ak mom baba yalla ñu yalla yalla motali yalla yàlla dolli xewal yi dolli sutura ya xam naa kon dañu lay delloo kaddu gi rek barakallahu na yalla yok barkel waye tam yalla dolli sutura yi ci barke Seydina Muhammad ñu nit dañu am mbégte bu yaatu yaatu ci bokk ak yow plateau rawatina di bokk ak yow waxtaan Euh, li ñu yéene waxtaane tey yàlla yàlla defal ñu ci tawféex incha allahu taala Hadj Tafsir tey bu ma ñëwee euh, li ma lay njëkk a laaj mooy ku ne xam ne réew mi fi mu toll xale yi ak mag ñi ñoo bokk benn problème bi ñu jàmbat muy wàllu rab am na ci jigéen ñu bëgg a sëy rab tee leen sëy am na góor ñu bëgg a takk soxna mais rab xañ leen ko am na ci sax ñoo xam ne ñuy liggéey bëgg teraanga waaye rab xañ leen ko Hadj Tafsir ki ñëw ci yow indaale rab ban solution nga koy jox ak lan lañu lan lañu mëna lañu mëna jëlé fi lo xamni dinañ ci mëna a gala ki nga xamni mom mo yoré ay rab waye tam dinañ mëna xam naka la nit mëna jaar ba teqalikoo rab di ko sonal ki kii jërëjëf oustad abdallah mu melni ni suñu delloo ci alquran duñu fa fekk turu rab mm-hmm. alquran waxul tuddul rab mm-hmm. yalla jinne la wax ak shaytan deug la waaye wolof moo baaxoo lu mu xamul rek wutal ko tur loolu nag moo indi tur bi ñuy wooyee rab mu nekk nag lu doy waar comme li nga ko waxee moom rab bari na lu yàqu ci société bi loxo ma nga ci moom rab nag li ñu ciy faral di wax rek mooy koo xamante ne bii yàlla mi am doole moo ko doole ndax koo xam ne tey saa yu su ko neexee mën naa dugg ci néeg bi te du jaar ci bunt waaw mën naa dugg ci néeg bi te du jaar ci bunt waaye li yéeme ci rab mooy li yéeme ci rab mooy nekk na mbindaafoon boo xam ne ni nga xamante ne bii noonu la deret di doxe ci yaramu doomu aadama moom li ñuy wooye rab da koy doxé nonu ci yaramu doom adam hmm. nek nak du doy war mom rap mom rap hmm. abdallah ni nga ko doré ne mak ñek ndaw ñi ñëpp am jaxal hmm. ndax ki nga xamné ne rab ak limi yaq bari waana tay ku ne ci société bi adulam yépp galankor rab la mo xam am ci jigen ñoo xamne ne dañuy dem ba am lu tollu ci 40 ans cinquante ans du nu dugg néegu sëy ndax dañuy sawlal te kenn waralu ko lu du rab dëgg la dëgg uhuh. rab nag nekk na loo xamante ni bii comme ni ma ko waxee léegi jëflanteeg moom lu jafe la uhuh. jëflanteeg rab moo gën a jafe ci àdduna uhuh. ndax li tax mooy dafa nekk benn mbindaafoon bu yàlla kàttanal ndax yàlla moo wax ne man yàlla maay jël kàttan walla maay jël nguur wala maay jël pouvoir def ko ci li ma neex te rab yàlla daf ko pouvoir da koo jox pouvoir hmm. bokk na ci yenn nit yi ñu mën a lim te tey ñu gis ko mu bëri lool ci dëkk bi hmm. mooy sawara su bari si ñuy gis te ba léegi nit ñi xamagul luy taal hmm, sawara su bari si ñuy gis te ba léegi nit ñi xamagul luy taal damay wax ne réew mi su fekkoon tey ni ñuy waxe ñu ñuy dégloo ni la ñuy déggee ndax nit ñi dinañ la déglu waaye duñ la déggee noonu bu fekkoon noonu lañ ñuy dégloo dañu war a toog ñu sang réew mi ndax nag suñu demee ci njàngale maam Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum mhm. daana wax ne réew mi nañ ko sang ndax affaire yi ñu gane fi mhm. su suñu sangul réew mi réew mi dina sang boppam ak dere xaj euh, tafsir dogguma la sax nga baal ma waaye danga wax léegi lu am solo mooy bari na tàkk-tàkk yi ngay gis ci réew mi te nit ñi duñu xam lu ko waral kon bu ma la déggee mooy léeg nga dégg ñu ni marché diw tàkk na léeg nga dégg ñu ni marché sangam tàkk na léeg nga dégg ñu ni bitig wala magasin sangam tàkk na tàkk-tàkk yooyu noonu kon rab moo koy waral alaaj li gën a yéeme mhm. mooy jamono yi ñu weesu ci ginnaaw mhm. danga daan jékki-jékki rek gis benn tali oto yi mbëkkante ci lu doonul dara sëfoor du nelaw dara du xew dëgg la du màndi du dara booba en général li ñuy wooyee jinne mhm. damay wax nag ne rab amul seytaane mu am ak jinne wolof nag moo xamul baat ba mu koy wooyee rab mais alquran buñ ci delloo mm-hmm. yàlla wa bind na saaru la mu tuddee ko sóoratul jinn mm-hmm. dëgg la li mu tudd seytaane it kenn xamul lu mu toll dëgg la su ko defee nag moom moom jinne danay def ñaare buy génn di doxantoo ki njabootam tali bu mu galandu di dem mm-hmm. lu ko naral yàqal ci benn njabootam mu arrêté loola léeg leen nga gis ñaari oto yu mbëkkante wala nga gis koo xamante ne bii day jënd kër gu jinne dëkk pour mu tabax ko mu yegg problème la bu bu set su tabaxee bu wanee ginnaaw mu daanu gis nañ ci xam nañ ci ay bërëb yu bëri yoo xam ne jëflante nañ ci ay nit yoo xam ne jinne moo fa dëkkoon hmm. kon su ma la bëggee wax ne la taal-taal yi ngay dégg ci marché yi hmm. di ko dégg ci yenn point yi hmm. li ci ëpp seytaane moo koy def te it li gën a yéeme mooy bu doon ñu mag ñe sax du garaaw bu doon jinne yu mag ye loolu du garaaw bu doon jinne yu mag yee nga ne lu garaaw la mais xale yu ndaw yi booy yi fo ñooy foyee sawara léegi nag bu ko defee en général fu ñu tombé fu ñu tollool rek di fo sawar di fo ci sawara rek hmm? en général foofu la tàkk-tàkk yi amee comme tey ñu tegoon fii benn almet xam nga sama doom xamul luy almet dëgg la mu ñëw jël do almet bi mhm. taal sànni ko ci kaw euh, fauteuil yi lu muy def tak ñoom loolu mooy seen métier xale yi ñooy fo moo tax ma ne pour mu génn ci tàkk-tàkk yu metti yooyu ngay gis ci réew mi ñu naan xale xale yi jinne yu ndaw yee koy def jinne yu ndaw yi ñooy mais yu mag yi bu ñu yeewoo fu ñooñu ñooñu leneen la ñu ne bari waane tey koo xam ne wallahi al azim day jàngaleen tok ci daara foko fekk yalla neena yonent bi lay wax waye pour mu taxawal julli problème la deug la nak moy mooy ak ñu mag yow nga ne murid la gawma kuy Cheikh Ahmad Bamba waye yow mbollem manam wirdi yi Cheikh Ahmad Bamba joxe nangoo ci laal ben yow dal murid ji mhm. lele sa pool fess nga joxe moy sax murid wala tiijaan nga doo dem mbalaan wasifa doo dem adra te boo toogee di tànt buñ la tàntalee wala nga toog di jàngale la ngay njëkk a wax mooy yàlla nee na ngeen jàmm te leen lii sax moom mi koy def du xam lu koy gàllankoor du xam lan la fekk booba ponkal yu mag yi ñooy jëflanteeg moom ponkal yu ndaw yi nag sa sawara wi ñuy foye nii hmm. moom mooy taal taal yi ngay dégg moo tax réew mi fan yi tàkk na de yëngu na nañ ci bàyyi xel mais xaaj tafsir euh, bu bu ma la déggee mooy wax nga ma lenn ci ay mandarga yu ñu mën a xàmmee ni lii jëfu rab la soit mu nekk ci endroit wala mu nekk ci doomu aadama mais nit ki nga xam ni am te moom yëgu ko xamul ni am na ko naka la mën a ràññee ci boppam que ni moom nangam ak nangam gi koy arrivé rab ma koy def loolu alaaji doomu aadamaa ngi nii foo ko fekk day mer mhm. maanaam tey kenn du ko def kenn du ko wax waaye moom foo ko fekk ma ngay mer mhm. wa ila en général da ngay gis koo xamante ne bii day toog ba yàgg di sentir luy ndox di wër ci biir yaram am na ci ñooñ tàkkusaan fu mu jotee ña nga ca kaw lal ya loolu nag damay wax ne julit dafa war a gës dara ci diineem mhm. defe naa ne émission bi di grand marabout bu maye naa fi listixaar lu dul benn du ñaar mhm. te mbir la moo xamante ne bii yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox ay saxaabam te mom lu mu wax rek loolu lañu yalla roy lo la la. kon bu ñu démé ba am jafe-jafe ci sunu walu aduna mhm. li nu wara déllu wat moy dem xol ko ni ñi fébaré mhm. dem ci docteur bi wala nga jël say machine. Mhm. ñu am luñ la bokkal fi am luñ la tek ci appareil. ne la yow de station moy yek mo wacc alcorane am na lopp lool deug la deug la. wa fi min shay'in. ya ko wax yalla am na lopp lool deug la. kon su ko defee doomu aadama bi nga xam ne tey yàlla dogal na mu man ko mhm. dafay fexe ba benn muy gëstu moom mooy kan mhm. sëñ Fallou mu baax ma dégg naa da daan wax ne doomu aadama bu ne war na am ruq mën a kan ruq mën a kan nga làqatu fa xool yow a dëgg la loolu dina waral doomu aadama bi yi may lim mhm. ndax benn en général mën na la jàpp comprendre lu xew alaaji li gën a yéeme mooy li nga doore mm-hmm. benn jigéen mu ngi ba euh, ci réew yu sori yi mm-hmm. ndeysaan moom li problème mooy doom dëgg maanaam tey bu demoon ba toll ci trois mois mm-hmm. affaire bi wàcc na hmm? dara mënoo fexe fexe ba maanaam bu sëyee jëkkëram daal dina japp ëmb bu tollee parena mois loola pare na. kon rap mën na la bàyyi nga sey ba pare xañ la doom. bariwaana. est-ce que. bariwaana am na ci ñoo xam sax ci rap mhm. am ci yo xam dañuy bàyyi ba dañ naan dañuy tok ak yow ne la bu tollee ci bu demee ba am wala ñaari at wala dañuy jël ba man gis na kuma ko wax. ko xam dafa ñew ne ma sëriñ mu ne ko sama ñent doom dee nañ at sangam la naan ma day am at moma day am mané ko nañ ñaan yalla ndax kenn nekku fi gudul yàlla te alquran yàlla bàyyiwul dara tay mu ngi and ak dom alaaji jinne dafa doon lo xamne dafa mëna gudd fan mais ha tafsir damay wat ginnaaw tuti mom rap bo léegi yaa nga may wax mandar gay ñu xamé ci nit mais lan mo koy joxé dafa bari xam nga mag ñi ci seen modes ak xamoon àddina ay jamono bu ñuy dox ci mbedd bala ñëw dugg mbedd am na yu ñu daan léemu yooyu nag daf leen daan dimbale ba du ñu taseeg moom waaye xoolal tey jamono ji ñu toll léeg-léeg jigéen romb lay dem dangay jàpp ne kii jinne la dëgg yow ak dayo boo man di am bu la ne bu ne cas jàll faaw sa bët bi tege ci moom dëgg la dëgg la dëgg la xam nga lu mu àndal mhm. seytaane moo ko dugg maanaam mag ñi léemu yooyu dañu ko amoon mhm. en même temps itam ci seeni njàngale dañu daan def comme ñuy tuur ay ndox wa ilaa ñuy teg ay mbalit ci biir kër dañu daan jël dóom sotti ci nga yaakaar ne doom bi pour sax yi la wala pour nàngam fekk booba ay màndarga la yoo xam ne bu ko jinne fekkee du du fa ne léegi nag yow da ngay ñëw teg ko à côté di ko romb sans condition nga legi te ñom mbali diegu bon yoy ci lañuy dëkk kon doom yoy nga fay def daf leen di xaj ñu ma daf leen di xaj ñom ñuy mëna ci fof est ce que kon place bu ñuy def mbali dañ fa wara a sotti doom dañ fa wara def eh, doom wala ay yeneen amna na yeneen mbir yeneen ak yeneen ay tekkal yu mag yi mhm, mhm. su ko defee nag mag ñi mhm. dañu daan fàggu yu mel noonu léegi nag ñu ndaw ñi jàpp julli sax defatuñu ko maanaam tayel nañoo toog di jaamu di di di di génn léemu dara tufli seen loxo raayu xanaa xamoo ne la xawla walaa xuwwata lu gàtt la waaye mënoo fexe fexe boo ko xëyee def nii raayoo ko amul lu la mën a lor ci kaw suuf la xawla wala xuwwata illa billahi al aliyyil azim nga def ko nii sa loxo raayoo ko ci sa kanam amul lu la mën a lor ñaata yoon def ko benn yoon rek boo xëyee bala ngaa génn sa kër. bala ngaa génn sa kër mais tey gis nga tey jii may yow ak yow. Mhm. am na ñooñ tayal nañ koo def sax. c'est ko nit dina taayal ba taayal ci boppam. maanaam looloo ñu lor alaaji. Mhm. société bii ñu ne. Mhm. bari waa na tey koo fi daan dégg déggatoo. tayal ci boppam moo ko waral. wolof mooy wax ne diw mu ñu fii diw dafa war di diw. waaye da ngay gis koo xam ne sax day day day xam lu ko war a aar mm-hmm. mu ne ko fa ñukk wala mu feebar dem léegi ci clinique bi mm-hmm. ñu bindal ko ordonnance mu jël garab bi tey mm-hmm. mu leer ko ne bu ko jëlee suba wér mu bàyyi bu tey bi mu jël tey ca lay yem bu suba moom du ko jël loolu la mag ñi di wax naan ko fàtte jubu bi la fal boo follee ko boo ko watee follee ko macha allah wala fa neexa wax mais mais mais mais amul tamit waxtu yoo xam ni boo koy génn dina waral rab la wala bokk na ci li mag ñi daan wooyee njolloor njolloor mooy mooy bu comme heure bi naaj bu tàng dix deux heures mhm. mag ñi nañu daan aaye ku ciy dox mhm. léegi nag demal ci marché bi nit ñi ñu ngi xelloonte rombante riisonteeg jinne yi maanaam timis mhm. mag ñi dañu daan aaye ku ci dox xaaju guddi mag ñi dañu daan aaye ku ci dox mais léegi ñun gëmatuñu yooyu te damay wax ne àdduna du neex a neex a neex a neex ñun ba ñu doon leneen lu africain. dëgg la dëgg la. Afrique bi ci des mooy colinu xale yu jigéen ñi tamit dina koy waral. mooy li ma waxoon ci njëlbeen gi rek bu ñu la rombee rek nga xam ne kii leneen laa ndal. alaaj mais mais léegi xaj tafsir loolu lan mooy solution bi. bari waa na tey yu ñu ci mën a joxe comme solution. waaye damay wax ne. ki nga xam ne tey yàlla dogal na mu yaakaar ne yii ma lim am na ci lenn lu ko gaar muy benn bëgg na alal mu tëkku mhm. day liggéey ñu koy fay weer un million wala lu ko ëpp waaye pour mu dajale ñaar dërëm daf koy të mhm. wa ilaa benn mu bëgg a tukki tey bu jëloon passeport oustaz ne da koy yóbbu léegi bureau ba ñu may oustaz waaye moom ci boppam lu mu dugg du sot wa ilaa mu dëkk kër goo xamante ne bii maanaam bu tabaxee balaa matale rek mu gis mu daanu wa ilaa yeneen ak tàkk-tàkk dugg fa wala yooyu mhm. damay wax nit ki nga xam ne pour lu simple rek mhm. kii moom la mag ñi daan wax géddu bëy géddu bëy géddu bëy géddu bëy waaw soo xoolee am na yu yuñ cay tànn muy neefare bëy yi géddu bëy mooy neefare bëy geddu bay maanaam fi fi ñuy yeew bëy ah. yow boo demee yii ngay wut yii gedd ba boo ca demee yow yii ngay wut neefare bay maanaam géddu bëy mooy ca gétt maam fi ñuy denc bëy waaw kay xam nga wolof daa bëri ay ay ay moom itam maanaam boo demee ci gédd bi maanaam fi ñuy yeew jur gi mhm. boo fa demee ba tànn ci yii neefare yii mooy neefare yi nga fexe ba am ndoxum juróom-ñaari ndoxu taw nga boole kook moom juróom-ñaari ndoxu taw gis nga kooku léeg nga gis koo xamante ne bii léegi xewoon na ci jamono yi ci école yi damay reere ndax booba ginne yu ndaw yi ñoo daan ñoo fo <laughs> da ngay gis mu toog ba yàgg rek mu jékki-jékki daanu ñu ne lu lu ko dal muy yuuxu moom la gaa yi naan ginne may mun a ay jinne Moussa toj nañ Moussa ak may Maymuna ay gore xale laa law xale yu ndaw ñoo doon fo ñoo doon fo mais léegi génn bëy bi nga ne dañ koy booleeg juróom-ñaari da fexe ba am juróom-ñaaru ndoxu kaw kaw yu maanaam cee boobu njëkk jël denc bo ñaareel nga jël denc maanaam déggin bi euh, juróom-ñaari at lay juróom at kon taw yu njëkk ya maanaam taw ren taw déwén ak taw déwénaat juróom-ñaari at kay jeexal na mais loolu dina jafe de lu yomb la anadoko sénégal kau sana kan? wax ah waaye mag ñi mag ni lépp lañu ko fàggul fagul. dugg guñ ci alxuraan de mais léegi muno muno mënoo jël comme ren première taw deuxième taw troisième taw ba juróom-ñaari taw loolu mënul nekk bu la neexee wutal juróom-ñaari teen yu bokkul juróom-ñaari teen yu bokkul demal Thiès ñëw Dakar dem Mbuur dem nangam Kau ne am ca ba mhm. nga boole ko géddu bëy léegi après boo ko boole def kooku gis nga ki ñuy wax ne dafa daanu mm-hmm. bërki démb rek yàlla dogal na mu daanu di kay kay di yuuxu ñuy woote di def nii ñëw rek xëpp ko ndox meeg affaire bi mm-hmm. fam tëdd lay daal di nelaw mm-hmm. gone yi ñooy fa de gone yi gone yi maam jinne yi ndaw yi ñooy fo seet léegi nag boo bëggee foo ak ñoom kii ngay wut kii ngay wut da ngay ñëw rek ko ko mu tëdd kon dal suma na déggé li moy solution bi benn ya mhm. ci solution yaa ngi nii ñi nga xamné itam man nañu alquran nañ dem ci kul hu ya huwa bu la nexé man ko bind juroom ñaar yoon sar bi bu la nexé man nga ko bind benn yoon ay bo bind bind fatiha nga jox ko musango hmm? ki nga xamné daf koy demal xol garab gu gu gu galanoo diggu yoon rek nga dagg ko jox ko mu tak ah manam garab gu galano nii ci digu yon mom ngay dem rek nga gas reen ba dagg ci mhm. jox ko mu tak ala loolu yom na loolu da jafewul est-ce yalla defal ñu deg defal ñu mais mais bala ngaa daaneel tafsir euh, dama deg ñu ni ñu ni rap, ba ci gor daf koy xiirtal ci muy fooye boppam oh dugg nga ci lu doy waar alaaji bari waa na koo xam ne hmm. mu ngi sax ak soxnaam mu ngi ak soxnaam de hmm. am na benn góor ñu baal ma nag du caagee ne damay bàkk wala damay déedéet damay waxtaan jàngale te dañoo toll ci jamonoy waxtaan la maanaam da ngay gis mu ñëw mu nee na day day dem ba war a ànd ak soxnaam day dem mballu ba gis boppam ci toilette bi door a ñëw ànd ak seq ak soxnaam. allahu akbar. loolu lu ko gën a doy waar yàlla sàkk. bari waana bari waana waaye nag nañ dellu ci njàngale mag ñi xam ne ñun ay africain lañ. dëgg la fee gëmuñu ne ñun ay africain lañ. suñu mbir wallaahi dañuy gën a sonn. dëgg la dëgg la dëgg la. tey la alal ëpp. tey la lépp ëpp te coonay tey te mu ëpp yu mag ñi. mag ñi ñettiweer lañ daan bay dund ci ba doyal waaye ñun dañuy dajale ay milliards duñu duñu nekk ci duñu duñu noppalu kon lan mooy problème bi am na ñu dëkkal fi lañ leen fekk hmm? wax naa la ne la ay jinne yu mag comme ay jinne Moussa Maymunaat ñooñu ngay dégg te jamonoy saxaaba ya lañ woon hmm. te am na ci ñoom ñu ngi dund ba jamono ji may wax yow am na ci ñu jóge ci sax yeneeni réew ci jamono jiñ fi taxawalee lii am na benn xiram bu nekk fii suñ kaw mhm. jamono jiñ ko fi taxawalee am na jinne yu jóge ci ay dëkk ñëw dëkk fi dëkk ci ci réew mi te yooye buñ ma taxee wax Sénégal dinañ dégg du dara nag du ñu dara de waaye daal nañu delluwaat sang réew mi mooy dellu ci li ñu moomoon démb. lu mel ni géddu bay ñooy démb. ñooy démb. maam yi yàlla nañu leen yàlla fayal. amiin ya rabbal alamin amiin mhm. xam naa ne bala ñuy daaneel. Mhm. dañuy ñaan yàlla jàmm ci réew mi. surtout loolu. réew mi. soxla na jàmm. dëgg la ndax moom lañu mos a xam. Mhm. waaye itam li may faral di wax rek. Mhm. jàmm fu mu am maslaa am na kon nañu delloosiwaat xel yi ñu toog masla ay africain lañ. te man li ma gëm ñun ay africain lañ. dëgg kon nañu dellusiwaat mhm. ñu xam ne ay africain lañ ñu jëf jëfi africain dëgg la. yàlla yàlla defal ñu dégg defal ñu amiin yaa rabbal alamin euh, kontaan nañ bu baax a baax a tafsir ci xam-xam bu am solo bi nga fi wàccee waaye itam jàngat yu am solo yi nga xam ni génn nga ko am nañu ci mbégte ñu ñaan yàlla nag ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu mën cee jëriñu waaye nag képp koo xam ni am nga lu la ci lënt wala am nga lu la jaaxal ci sa wàllu àdduna dinañ leen afficher numéro bi ci baar baaru écran bi ba defee ngeen woote ci jëflante ak Haj nga dina saafara seen i jàngoro waye tam di ngeen ko mbolam leen ko ha tafsir question bi may ak yow euh yeen gëneel nga ñu nga ñu wax ci xarum tabaski manam secret yi nga xamni dess na ko mëna jëfëndiko ci xarum tabaski fa tabarakallah oustaz abdallah mhm. tabaski dafa bari ay ngëneel mhm. xam naa ñi sant saw bo tuddé tabaski rek seen xel dal dal di dal yi contane ndax yu yu baax ya ñu tey def ca bis ba mm-hmm, mm-hmm. waaye oustaz abdallah gis nga tabaski li mm-hmm. ma doon wax léegi ci ki nga xam ne day tuur ndox nañu fexe ba am ñetti xooxu buy ñu dagg ci karaw xaru tabaski bi ñu defal ko ko cëwri mu takk ko cëwri mooy wolof yi dinañ comprendre. ah acca ko beneen bi itam Oustaz Abdallah hmm. ci njariñu xaru tabaski dangay gis kër goo xam ne maanaam jëkkër ji ak jabar ji comme maram ak biraan hmm. jabar ji daal bu tayee mu ñëw toog ñaari fan bu subaa mu dem yoonam hmm. jëkkër ji daj na lu ne wala jëkkër sax léegi de dem nañ ba toll ci période boo xam ne jëkkër mooy fay gedd kër gi gedd kër gi gis nga buumu diinu jeewe tànku xar mi guum bi ñu yeewe tànku xar mi bu ko dagg tekki ko mhm. mag ñi am nañ luñ ko daat booleel ci ñaar ñiy sëy mhm. dee rek ah? Abdallah mag ñi duñ kenn du ñoom kenn du ñoom jamono ji ñu toll mos nga gis gisati nga kuy boole ñeenti jabar ci kër yombatul man ñi kenn du ñëw mom kay ben nga laye ni dama lay tabaxal ci kaw mu ne ci suuf lo lay de mën naa ko deg mhm. waye yeen ñëpp ci ben kër gi bariwul lo koy deg bokk ben ëtt bariwul lo koy dégg bariwul dëgg la koku mag ñi dañ ci daan def yeen tay def ci walu ñaan ci ay mhm. fas mhm. suñ ko defé ci kër gi jigen ci du jël bagage bu le goor nga dem du jël bagage tok sey rek ba bis penc bu ne ko ne ko ne matal dem kon bariwaana kon dañu koy def à suivre. gis nga xaru tabaski. Mm-hmm. dafa yéeme. Mm-hmm. xam nga lu tax mu yéeme. Mm-hmm. mooy boroom kër bu nangul yàlla la. yaay ju nangul boroom kër. doom ju nangul ñaari waajuram. moo tax lépp ko barke. tabaski. lépp barke lépp tabaski dafa barkeel gis nga tey ki nga xam ne <laughs> allahu akbar mhm. yàlla yàlla defal ñu dégg defal ñu topp amin ya rabbal alamin <laughs> yàlla may ñu ñu mhm. tabaski ci jàmm amin insha allah yàlla wàcce jàmm ci réew mi wàcce xéewal ci réew mi amin amin insha allah lépp lu fiy tàkk ciw ay yàlla man na koo jeexal yàlla na ko yàlla jeexal yàlla doole doole sunu réew mii di Sénégal. Mhm. ba fi réew yu mag yépp egg mu yegg fa. Mhm. ci mbaaxu yàlla ak kàttanam. Mhm. sunu kilifa diine yi itam yàlla yàggal leen fi te yokk seen wér. ñun ñii di taalibe itam yàlla def nu dëggi dëggi taalibe. te may ñu fan wu gudd lool te mu ànd ak wér. xam naa dañuy wàcce foofu kàddu yi. di ñaan yàlla. li ñuy topp ci jataay bi yépp lu ci waay jël yàlla na ko yàlla def muy njariñu àddina ak njariñu àlaxira wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin barakallah Beyhac euh, Tafsir xam naa sax tàggatoo woon nga pare waaye ñi bëgg a jokkoo ak Alaaji Tafsir Anne yan numéro la ñuy tàppe waa kay ku mu neex mën na woote ci 77 658 89 89 wala mu def 77 vingt 926. 24 75 ñaari numéro yooyu ku ci woote dig ñu jot. Oustaz Abdallah dañuy fàttali rek mbokk yi ñi nga xam ne dañoo am wàllu jafe-jafe ci wàllu ngóora. Mhm. ba tey garab bi amaat na. ñi nga xamante ni dañoo amee wàllu émorite ba mhm. tey garab bi amaat na. ñi nga xam ne itam ndoxu siti mag ñi di ko wax toppum sët. Mhm. daf leen a sonal itam ba léegi am nañu garab bi loolu rek lañ daan fàttali. di ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel jataay bi mm-hmm. yàlla dolli fi xéewal mm-hmm. di ñaanal Fidèle Info waaye di ñaanal itam Taaha TV bi nga xam ne mm-hmm. sunu xameek Fidèle ci Taaha la jaar di ñaanal sunu caméraman bi yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram di wax mbokk yépp nag nañ ñu topp aljuma ju jot dinañu ànd ak yéen seen émission bu mag ji di Grand Marabout wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin barakallah mbokki mu ngi noonu ñoo ko déggandoo ñu àndoon ak seen xarit xaritu mboolem ku bëgg lu baax oustaz alxaaji tafsir aar mu sëriñ Babacar Sy jàmbaar ji nga xam ni ku jëflanteeg moom yëg ni jëflante nga ak ponkal kon mu ngi noonu numéro yaa ngi noonu woo leen ko mu saafara seen i jàngoro woo leen ko mu defar seen i mbir waaye itam jagal te teg lépp ci alquran ak sunna mu ngi noonu yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ci daraje Seydina Mohamed yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen site bu mag bii la di euh, Fidèle Info ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla yokk leen dëgëral waaye itam yàlla doon leen jàmmal waaye itam di ñaanal sunu caméraman bu ñaawal bi tabaarakallaahu ñaanal ko moom itam yàlla dolli ko barkeel ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam in uridu ila al islaaha ma sataatu wa ma tawfiqi illa wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ba beneen yoon ci beneen numéro waaye itam ci beneen thème incha taala ngeen am jàmm réew mi am jàmm man it ma am jàmm ba aljuma ak jàmm incha allahu taala